baby. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu aouzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina euh, mbokk yi ñoo ngi leen nuyu ñëpp kenn ku ne sa ak sa sant ñoo ngi di wax ne lañ kontaan nañ trop kontaan nañ trop def ji ñëw ba léegi lépp mat na sëkk xewal yi mat na lépp mat na dañ ñaanal yàlla may leen gudd fan ak wér gi yaram euh, na ñun c'est la première fois ma ñëw fii c'est la première fois ma fi doog a ñëw mais kontaan trop gis naa fi teral nañ ma lépp mat na sëkk kon nag ñu ngi kontaan di jox ñëpp mbégte euh, di ñaanal Mame Baye Laye fam nekk yàlla may ka fa gudd fan yàlla yàlla bàyyi ka fa te ay mbayam di baawaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu asalaamaaleykum yaa ngi ma fekk nag maa ngi toog fii mooy jàmmalaay ngi ma toogal nii kii sama doom la kii sama rakk la ñun waa cëriñ lañu waa Ndakaaru laaj nga ma nag ci loo xam ne lu ma neex la daal waaw Seydina Limaamu lébu la maam Kumba Ndoye ko jur ak maam Alassane mu juddoo fii wootee fi waaw nekk nit koo xam ne dafa ne yàlla moom moo yónni loo xam ne loo soo ko waxee waat la mu wax ko en 1883 woote 26 ans ñaar fukki at ak juróom-benn loo xam ne bu ñu nee ne ku ko wax ren déwén du la fi fekk wala maximum 3 ans du la fi fekk. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam démb vingt vingt trois ans la ko woote moom woote ko vingt six ans waaw am fi ay doom ay doom wuutu ko su fekkee am na leneen loo xam ne moom nga bugg a laaj nga laaj. waaw moom ñëwul woon pour wax géej gi mu randu li limaamu lu ko indi woon mooy yàlla moo wax ci alxuraan ne maa ngi yónni yonent boo xam ne maa ngi koy yónni ca ñi jàngul mu di leen di wax samay wax samay aaya di leen jàngal di leen di leen teg ci yoonu yoonu yoon bu jub ki sóoratu jumaa waaye def ci boole wa axirina minhum lamma yalxaaxum ak ci ñeneen ñoo xam ne dina fa wàcc loolu yàlla moo ko wax ci alxuraan donc c'était prévu que moom mu war a ñëw woote woote nag boo gis dafa waaw boo gis dafa am déedéet foo ko yëkkatee ñu ne la du fii waaye bi muy woote yàlla daf ko may moom moo magoon maam Maodo moo magoon maam borom tubaa te dafa bàyyi ba ñooñu nekk fit ba nekk mus kalaf mu doog a woote wootewul ci ay ñoo xam ne ay jaay lañ de ñi fi woote ñoo raw ci at ñoo raw ci àdduna waaw tey jii kenn du wax adduna doo wax euh, maam borom Touba maam maam Maodo noonu foofu la wootee waaye nag woote boo gis waaw boo gis déedéet daf cee am déedéet ci woote la bokk waaw léegi nag toujours nag comme que dañ ne moom moom yonante la xëj na dina mën a am lu ko yàlla may ba tey su ñaanee sunu suñu borom suñu borom may ko géej gi nag dafa nekkoon géej goo xam ne dafa dafa dafa yëngatu woon trop daal leen sonal daal leen sonal daal leen sonal ba ñu ñëwee ñaan ko ne ko dañu buggoon comme nga wax ak sa borom comme que yow kat yow yàlla moo la yónni nga wax ak moom mu dimbali ñu ci géej gi loolu mooy source bi. Cambérène ak yoof ak ngor mooy dëkkuwaayu sëñ naa limaamu ngor ba nga xamee ne Seydina Mohamed def na ñetti fan ci bàmmeelam ci la ànd ak ay ruu yi mu àndal mooy ñuy wax yaa naawe woon màkka ak sunuy ruu ci la ñëw fii ci xunt mi ngor nekk fi boobu nekkul jëmm leer la woon saa yu wër àdduna ñëwaat ngor loolu moo indi ngor bi yoof bii nag fii la ba ci jëmm la jëmm ba mu amee jëmm la wootee ne aajiboo daaye la yaa maasa in si wal jinni ini rasulullah fii la ko wootee ci jëmmam fële leer la woon mu dem ci liggéey bi nag dem Malika ñu jële ko fa yóbbu ko Gorée ba mu jógee Gorée nag ci lay doog a sànc Cambérène parce que moment boobu gars yi tas nañu ay ay kiyam ay ay taalibeem tas ku ne bëgguñu woon comme tey jii rek yaa ngi gis parti bi ñuy wax Pastef gars yi tas nañ ko tëj nañu waa ji nangam comme noonu rek ñu tasoon tasoon nag daayira yeeg ñëpp jógu fi léegi nag moom ci la sànc foofu mooy ndinga la ndingala ba mu amee ba ba ba Seydina Limaamu dem ci la doomam bu ñuy wax sey naa Issa nekk ci jal bi kooku moom moo indi Cambérène parce que dafa am benn moment mu am feebar bu ñuy wax peste ñu toxu ñëw Cambérène donc loolu moo ci boole Cambérène donc bee mooy bu nga xamee ne leer la fii la wootee fële mooy ba mu demee ñu ne dañ koy sànki ba mënuñ ko sànki mu dellu si loolu moo tax Cambérène am moo tax ñetti kii waaw Baye Laye waa Ndakaaru déggalu ma la Yaraax du Baye Laye moo fa jaar Seyna Issa moo fa wàcc naa Issa moo jógee Ngaaxam wàcc jar wàcc foofu parce que dañu ne woon naa isaa bu amee 33 ans ci lay ci lay wàcc 33 ans yi bu mu amee 30 ans yi bu mu amee 30 ans ci la génne fii dem ngaa xam. sa yéegee woon. waaw bi mu demee ngaa xam boobu papam mi ngi am ci jal bi 30 23 ans bi nga xam ne 23 ans yooyu la Seydina Mohamed amoon ca Makka bi mu wootee 23 ans yi bi mu matee xam nga dafa waroon jeexal fii mais ñetti at lañ ci dolliwaat. ñetti at yooyu nag moo waral issaa jóge fii dellu nga xam parce que mënul woon nekk ak papam fii issaa nag bi papam génnee àdduna ci la jóge nga xam ñëw ci la ñu ne Issa de day wàcc jóge juróom-ñaari asamaan ñëw waaye boo ko misaalee si ñun lu ñuy wax ñun bu ñu dëkk fii ku dëkk boor ba dañuy wax kaw ga nga jógee kaw ga kaw ga muy jóge nag moo jaaxaloon nit ñi ba muy ñëw boo xoolee Tiwaawoon la commencé ba ba ba yaraax boobu ngay wax boo ko compté juróom-ñaari gaar la juróom-ñaari station yaa ngi dégg bu baax ba mu wàccee foofu nag fekk fa ay ay ay ay tubaab ay labbe ñoom it ñuy xaar Issa pour ñoom nag Issa ci kaw lay jógee nii wàcc moom mu wàcc ci saxaar si ñëw jullee si papam loolu mooy histoire foofu ñun ñoo la gën a bëgg. xaajul su cin li waaye nag du may tëj rek maa ngi leen di gërëm di leen sant seen chaîne bi maa ngi ñaan yàlla ñëpp seetaan ko seen chaîne bi doon lu chaîne bu mag waaye na na waa Sénégal ak waa àdduna xam ne moom la ak du moom ak ku dem dem moom la paase nañ foofu Limamou mu ngi woote tey la cent quarante quatrième année te du ñu ne boo ko wootee ñetti fan doo ko am wala ñetti weer wala ñetti at kon nag maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di ñaan jàmm nag ci réew mi di ko ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm yéen tamit jërë ngeen jëf merci beaucoup. dafa nekkoon imam nekk xaali xam nga xaali di atte vingt deux ans la doon atte Ndakaaru gëm gëm limaamu moo tax ñu destitué ko waaw kooku mooy mooy mooy mooy maamu Thier euh, Maodo bii ngay daan jiite nag fii voilà maa ngi leen di sant bu baax. di kontaan tamit ci li ma. man soxna Khoudia Mbaye laa tudd man maa ngi bawoo Cambérène. Mhm. Ah, bii mooy juróom-ñetti at. lu neex rek laa fi dund tubaarkalla macha allah ah, maam limaamul Mahdiyu tubaarkalla macha allah mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëtam Sërif Ousseynou di sama wóllare di sama xarit yàlla boole ma ak moom bay boo ma ne defal na ma lu mu defalul kenn ndax man sama cosaan mooy Kébémer foofu laa dëkk ma ñëw Cambérène fekk fa sama yaay ma nekk ci jafe-jafe bi ma ñëwee mu yóbbu ma ci Chérif nu Laye bi ma demee ci Chérif toog xaar ko ci salon mu génn sama yaay boole ma ak moom mu nuyoonte ak moom mu toog ñu waxtaan ma wax ko sama soxla mu ma soxna Khoule danga ma samay ñoñ bu ñëwati mukk Cambérène te ñëwoo ci man yaay na azim dinaa ko waxaat sama bàmmeel mu bind téere ci loxo boppam moo ko bind ci loxoom jox ma téere boobu nag dama ci naqari mooy téere bi dafa jekki-jekki dem ma am ci loo xamante ne si waa Cambérène gëm gëmu dëkk amuñu ko ci moom ma di ko ñaanal yàlla na xëppee àjjana te yàlla taas ñu ci barkeem lay maxtaar Alassane ak Seyni yàlla nañ ko fekkee at yu baree bari macha allah appel bi neex na yaa nañ ko teewee at yu bari ci barke yonent bi macha allah lépp doy na. Ah, taxawaayam ci diine ji baax taxawaay comme ni jullit di taxawaay ci diine noon la taxaw woon ci diine tey di suuxat xale yi ci diine di leen suuxat ci lislaam di leen eh, suuxatam ci seen waajur di leen suuxal ci diine suñu boroom ci loolu laa xam ci moom lay maxtaar di ko ñaanal gudd fan astafurlaa di ñaan di ko ñaan daal yal na xeppe àjjana kooku lu ma bëgg a wax ci moom dama koy xeeb ndax sama xol dafa sedd ci moom waaw sama xol dafa fees. waa may nuyu nag ajaratu Fatou lay Laye mu nekk si karkat bu mag tubaarkaala macha allah fii ku nekk xam nga aji ñu fekk si ko fii nag tubaarkaala macha allah fii buñ fi ñëwee Yoff moom moo tax mu fi indi teranga yu bari man maa yore waañu aji Fatou Laye di koy ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér di ko ñaanal yàlla yàggal taxawaayam. ku baax ci yoon wi la tubaarkaala macha allah buy ñëw fii lu nekk lay indi ay kaar lay indi tubaarkaala macha allah di taalibe sëñ Ablaye Thiaw tubaarkaala macha allah bokk ci yoon wi doon nag ku ci kawe yal na yàlla guddal fanam yàlla yaatal wërsëgam ba lim fi indi ren su déwénee yàlla fi indi lu ko ëpp laay maxtaar ak ñi mu àndal maa ngi koy ziar bu wér ak ka bi waaw ah ñëw euh, teewee si appel bi rek comme chaque année depuis bu ñu ba allah tant que ñu ngi dund duñ ko rate. Mhm. depuis bu kay. bon Medina laa dëkkoon ab mais maa ngi bari instant bi bari bari ah woote bi la rek Seydina Limaamu moo nit ak jinne

mom Yoff mom fi la yëpp mujjé dal mën na né ah comme ni ñu xamee rek ñun laay nii ñu dal tey rek euh fété ko ci jamm rek dal ak tey comme ni ñu xamee rek waaw parce que ki fekk ci mom du n'importe qui donc mën nañ ko jox gëddëm da respecté bis bi respecté ñi fi nek parce que mën naa duñu kasse moy wuy si nit a ginne la wax donc nañ xool toogaay bi xol taxaway beeg yépp daal. moy lool parce que moy lool dal ya ma gëna a xam. merci ok d'accord Chofel ak mbeugel motax tay jamalaay gi fess del am ñu fanaan fi 3 h du matin ñun ñu ngi ni si tefes bi te baylay bo xon ñu dugg ci géej gi dañ ciy dugg. barki maam li maamu. loolu de moom dëgg la loolu de moom ñu ngi sant bu baax. kii kay du nit kese ñun sax dañ ñoo jaaxal ñun asuma ak barki sëñ Fallou. dang ko gëm comme nu ma leeree ni man sama yaay nu ma juree man noonu la ma wóoree ni li maamu mais Momadou. barki seen naa li maamu mais rasulilaay te suñu waxoon léegi ñu fay dañuy fay dem naaw yi kase. non loolu beneen affaire la li ñu yëg moom ñu moom ak ah, yàlla lekk ko xam billaay ña ngi koy dundale bu baax te ñoo ngi ñaan yàlla tamit ñu fekkee ko ay ate ate at ok ah booy de ña ngi koy gérer bu baax ñoo ngi def seen liggéey nu mu waree fi moom liggéey bi lan nag la jëf jël li mu may fay kase ah. njaag waaw lii man Fama Sow Fall laa tudd. Euh, teewaay euh, sama teewaay bi tey nag nekk na teewaay bu ma neex parce que maa ngi jóge fii ba Kayar di ñëw di màggal appel bi appel bi doon lu neex a neex si ñun waaw dund nañ mbégte mi daal waaw lépp fàllaaw. depuis trois jours maa ngi fi pour xaar appel bi bés bu mag bi wax dëgg fa yalla boobu batay ñu ngi fi. alors yow yow tu es de la communauté wala yow Marie Rando quoi. non non c'est pas une question de Marie Rando de mais dafa nekk loo xamante ne daf ma neex ma bëgg ke bëgg laayee ni sopp leen te nit ki loy def am nga ci gëm-gëm am ci bëgg-bëgg ya nga gëna xam loolu mo tax. naka nga gis kon man nga xam ni yow gan nga fi ci Yoff Jàmmalaay. wa gan la fi mom xam donc yow nak nga dundee. Euh, réellement hmm, euh, ni ñu accueillir gan ah ni leen accueillir moom accueillir bu ma neex la wax dëgg fa yàlla ndax accueillir nañ dara manqué wul boobu ba ñu ngi fi ñu ngi toppatoo bu baax a baax ñu man gan lan wax dëgg fa yàlla moom. Ah, donc bu ñu déggee fan nga fi def xanaa bii di ñëw di nga def une semaine. waaw bii di ñëw moom dinaa teel ñëw. <laughs> ok merci beaucoup. <laughs> d' merci beaucoup. man si laa tudd quoi. man man de de Déri Ndiaye Déri Ndiaye waaw. waaw xam nga ñun bi ñu déggee appel bi Seydina Limaamu Laay dana ne maa nga woon ni tax li tax bi mu ne nga woon ni tax jinne yaa maa soo insi junni rasulillahi aleykum wa ma cheyfana la tax turullah aleykum ma xaafira mu ne sama woote bi man Seydina Limaamu ñe leen wuy ji woote bi yàlla bi mu ne amar yow mi dexal ngir woote bi yaaram bi ñëw leen uy semi wa ashhadu an laa ilaaha wa abdahu laa sharika fa laa yahbado amul benn bur ko ñu a jaam ko du bi xàkk ko du moom yàlla wa iqaamu sala wa taxawul julli wa taaw zakar wa jaw asko shehru ramadan laay nag alayhi salaatu wasalaam waxoon na sama woote ko uy siwul fi ba déwén boo bëggee yonante laa boo ko bañee man maay imaam naan man maay xayri xal xolaay man mi yàlla yónni man maay yonante man maay imaam naan man maay ibnu asan lay gëm seena limaamu laay nag yàlla ñu sa kaw sa kanam mu ne naar baaxee xeesoon ñuul na tey jii mu ne waxoon na si àdduna si ay jamanam mu ne nit inay dem buy jaamu ay xërëm inay dem bu fàtte jaamu yàlla amatul tey Sénégal tey jii nag jaamu yàlla amatul tey tey topp seen ba nekk topp seen bëgg-bëgg lan moo waral tey suñu maam yi boo xoolee ay maam Alaaji Malick ay maam Borom Touba ay Baye Niass ay maam Limaamu Laay ay Thierno Sadibou ñoo ñëpp dee fi ñaan Baye yéen nag yal yàlla may leen si barka Serigne Moustapha yàlla barka kay incha allahu rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw Assane Sy waaw Karim Diagne waaw. teewaay bi. kontaan ak mbégte ak euh, xol bu neex ak xol bu sedd moo tax ma ñëw tey bés bi te xam ne Limaamu Laay bu woote day ma ne Sëriñ Tuubaa moo woote ñu ñëwee tey bés bi ndax ñëpp benn la ma ñëwee tey bés bi euh, ma jàppee ko ngir jëm ma defee ko si jëfi Sëriñ Euh, parce que ba ma fi gëjee léegi am na ñaari at bi ma fi gëjee léegi. bi ma fi gëjee léegi am na ñaari at mais ñëw naa fi. mais boobu yàlla dafa dogal ma gën a nekk xale gën a nekk si li xamante ne maanaam dama ñëwoon rek jëfe ndigal boobu mais tey dama ñëw introsé ngir ñëw teewal fi ñu bëri ndax ñi may ñi ma bàyyi ñu ginnaaw ñu si bëri am na ñamante ñu ngi man boo demee ñaanal ma ñaanal ma te kon am na kon amaana am na ñuy bàyyi xel ñëpp laa ñaanal yàlla bëggoon xam euh, yow ñu euh, euh, teeroo gan yi naka ko gisee. non ni ñu teeroo trop ndax et puis boo demee sib dal toog fa xamuñu ko xamuñu kii taalibe la xamuñu kii natt na xamuñu ne kii jugee na fi xamuñu ne kii si oto la yëg boo ñëwee ñu berneel la ba boo ñëwee boo jugee dem si beneen dal da nga yàkkamte ñëwaat si dal boobu. ndax ñoom ñaar no day mel ni day dañuy jongante dañuy dam dañuy dàqante maanaam jongante comme néegu sëy voilà teraanga gi dañuy jongante waaw benn message mu lay tëjee mooy que ne nit ñi dañoo jàkkaar ne maanaam euh, Serigne Saliou Serigne Saliou mi nga xamante ne ni moom moo ma yar def ci man lépp ma wàcc ma wàcc ñeenti yoon mu def ma ma doon taalibe boo xamante ni képp ku xewle ku nekk ma dem fa di ñaan ñëpp ku xamante ni képp ku xamante nga sama émission nga dem abonné ñu Karim Diagne 54 te xam ne lépp foofu lay xewee. saa <laughs> ولكن تسألكم يوم القيامة yiw rek bàyyi laay yiw rek la indi yiw rek ak seen xel yi ngeen xam mooy kan dañu toll si jamono boo xam ne axul zaman la jaam yi ni ñuy perte dafa bëri de bàyyi leen xel bàyyi leen xel si lu leen wax bàyyi leen xel si önlüyor.